leeral ko fi en tout cas nag ñun gisuñu ci ndar ci ñi ñu jiitaloon ba ci élection yi képp ku kenn ko fi taxaw wax ñun jël nañu suñu responsabilité avec le président de la fédération défendre parti bi waaye aussi défendre ëllëg ki nga xam ne mooy nekk suñu candidat ci élection présidentielle yi 2024 donc loolu la ñu waxoon ni danañ ko leeral ci waral pour que mu leer ñu xam ne Saint-Louis position mooy Karim Wade foofu mu waxee foofa la noonu mu waxee noonu la responsable yi fi nekk nag muy goxu mbaaj gendar sanc ba kër yi Ibra Jeey te jigéen soor ñi nga xam ni tamit ñi ngi ànd ak Samba lim nañ leen fi sànq ñoom ñëpp seen xel mi ngi ci jataay bi def naa ne bu ñu xoolee ni ci télé yi beneen yoon bu ñu wootee kenn ku ci ne sa sa soxla di nga ko bàyyi di nga ñëw ndax yaatal gi moom bis bu yaatoo parti bi delluwaat fa mu nekkoon démb ak bërki démb insha allah rabbi defe naa ni dox ñu dox ngeen du yoon te itam PDS du caaxaan ba ku mu neex rek ñu jël parti bi tekk sa loxo nga kaa nasaxal wala nga kaa suuxal loolu Saint-Louisien yi duñ ko nangu te kenn dootu ko nangu loolu jug na fi su mën nañu combat nag boo xamante ni combat la pour xeeb dara